ñu nar a luubalkat yi loolu rek la sénégalais yi daal di xaarandi ñëpp di ko laam-laame di joxoñ baaraamu tuuma ñu ñu duppee nii ñoom ñoo sàcc alalu askan wi naam nag li nga xamante ni moo di jubbanti senegal du ñu fi nekkoon njiit kese lañ ci nar a jàpp naam nag dañuy xaarandi ba fi mbaxane daw ne benn daal di ci indi ay leeral luubal nag doon li nga xamante ni nag dafa bokk ci suñu dundin ndaxte kuñ ci tabb rek say jegeñaale ak say mbokk dañuy xaarandi lu bari ci yow. te saa yu teg loxo jotee nag ki fi nekkoon jiit rek lañ ciy joxoñ baaraama tuuma ndaxte fii ci Sénégal dañuy xaarandi ku fi am ndombo tànk nga daal di koy séddoog sa waa kër loole nag waral ñi fi nekk ay riñ ay directeurs généraux wala sax njiitalu conseil d'administration ñi gàlloo koppar gi pression bu bari moo daal di gàll seeni loos te jógewul fenn fudul ci askan wi ngir ñu am fuñ la teg faw nga amal askan wi nag njëriñ maanaam di leen daal di compal lu waay soxla bu dawalee ci yow rek nga daal di ko koy fajal. ci relation yi nga xamante ne nit ñi dañ koy am seen biir intérêt moo koy daal di lal mu mel ni loolee nag doon na ndigg sërëx bi nga xamante ne nag daal di ciy génn du doon li nga xamante ne nag dafay yomb ndaxte saa su nekk mentalité yi di gën a dellu gannaaw jubbanti Sénégal gi ñu woote nag warul yem képp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi seen loxo setul yu nekk ci administration publique daal di koy doore ci askan wi daal di soppi gis-gis yi loolee lañ war a jàngal ñëpp ngir rek ñu daal di mën a soppi suñuy doxalin rawatina nag ci famille yi ci communauté yi itam ci askan wi loolee nag du doon li nga xamante ne dañ ko daal di xaarandi ci inspecteur d'État yi ak ñi ko war a saytu wante nag dafa war a gàll ci loosu ñi yëngu ci wàllum politique itam ci ñi nga xamante ne faruñu ci benn boor politique.